ngir mëna jariño li ci nek motax ñu tan mbokk mo xamne ne itam euh, seetlu nañ ci mom ak dal ak tey ginaaw bi nga xamé ne nañ ci mom mëna jang ma sha allah mu li ñu qasida gi ci gën jaarafeti anam ak kem liko waxtu wi may ci ak jotali kon serigne seexuna bismillah ah serigne abdoulahat nga ko waxe rek kon xasida gii di ilhamu salaam fi dabbi an diinil islaam sëñ bi da ci aar lislaam noonu la ko tudde mooy aar lislaam ni nga ko ci aare it mooy ni na ko daan faral di waxe rek tubaab bi bi ñëwee ba not réew mi ba ñi doon jàmmaarloog moom daan jëfandikoo gànnaay yépp mu not leen ba yilif réew mi nag dane woon li ko desee léegi nag mooy jëm ci xoli nit ñi ak xeli nit ñi loolu ku xam tubaab yi jamono yi ci mujj ati quatre-vingt yi mille huit cent quatre cinq jëm kaw diggante boobu daanaka mooy bi la Dior daanoo quatre nga xam ne kuy kii amatu fi daanaka foofu li ñu doon bindante seen biir mooy wane na léegi nag li ñu war a taxaw mooy nu ñu mën a noote yi nit ñi ak seeni xel sëñ bi itam foofa la jóge moom it nag du jàmmaarloog tubaab bi ba du ñu not xoli nit ñi ak xeli nit ñi ci biir jàmmaarlool boobu nag bokk na ci muy xamal nit ñi ñi nga xam ne am na fu ñu tegoon tubaab bi am na nu ñu ko jàppee woon noo xam ne tax na ba ñemewuñ ko tax na ba luñ gis ci moom rek jàpp ne lu baax la tax na ba sax ñu koy roy ci lépp lu muy def mu taxaw wane ne loolee du lu jaatu ndax loola bu wéyoon rek mooy tax tubaab bi moom xol yi ak xel yi te moom li ko taxoon a jóg mooy fexe ba tubaab bi du moom xol yi du moom xel yi ku ne xam na ne it joteem ak tubaab bi loolu ñoom duñ ko fësal waaye bokk na ci li leen ci gënoon a li leen gënoon a metti ci moom sëñ bi hmm. mooy loolu mu doxoon diggante nit ñi ak naw gi li ñi daan naw tubaab bi ñu àndoon ak sëñ bi sëñ bi nekk Touba tubaab bi dañ leen ak gisoon gis ne ñoom fi leen ñeneen ñeneen ñi teg ñoom tubaab bi ñoom tubaab yi hmm. ñoom ñi ànd ak sëñ bi teguñu leen foofu ndax ñoom sëñ bi rek lañ tegoon ci kaw bindeef yépp yi fi doon nekk ba tax gisuñ tubaab bi xoolewuñ leen ni leen ñeneen ñi doon xoole hmm. kon tubaab bi dafa yëg ne daa mel na daal fi ñu ko waroon a teg ci seen xalaat ñoom fi ko nit ñu war a teg dañ faa teg sëñ bi loolu bokkoon na ci li ko naqari lool ba moo tax bi mu ko génnee itam wax nañ ay lay dëgg la mm. waaye xam nga ñoom dañ daan def at mu nekk at mu nekk ñu def rapport boo xam ne dañuy tënk li fi xew ci at mi yëpp kuy tënk nag la la la munta ñàkk rek ngay wax kon mbir la ca am solo dëgg-dëgg rek ngay wax ci biir tënk bi ñu doon def ci at moomu di ko yónnee seeni kilifa bi ñu agsee ci mbirum sëñ bi ak du tax ñu génne ko dañ ne rek jàpp na dogal nañ génne ko yóbbu ko Gabon. Mm-hmm. ba ñi ko doon topp fanatique fanatique la lañ ko tudd fanatique ci seen xalaat ñoom. Mm-hmm. mooy ñoo xam ne daal dañoo amul sago ci moom ba lu mu nekk ñu ne ca fu mu jëm ñu jëm fa. duñ du du du du duñ ko mën a gisati du mën a amati ñu mel noonu bu demee foofu du am ñu mel noonu ñu ko fay topp. Hmm. kon loolu dëgg-dëgg lu leen ñoroon la mooy fi ko nit ñi tegoon lu leen ñoroon la te la tax rek mooy moo leen woon ne tubaab bi ni ko ñeneen ñi jàppee du noonu kon solos xasida gi. Hmm. man des naa wax ne foofu lay gën a fese. te li ñuy wane ne ci jamono yooyu la woon muy ci njëlbeen gi rek. Hmm. njëlbeenu. Euh, manees na wax ne njëlbeen gis bi tubaab bi xame sëñ bi mhm. ndax ci ñiy gëstu dañuy wax ne ci mujjug 80 yi ci lañ ci lañ njëkk a gisee fu tubaab bi tuddee sëñ bi mhm. ay quatre ay 89 jamono yooyu lay nuru ndax jamono yooyu la daan tuddee la daan jëfandikoo turu boppam mujj gi mhm. lu ci bari xaadima rasul lay wax waaye daan wax turam di wax turu way waajuram lu jiit loolu la ko daan def te téere bi da ko da ko tàmbalee noonu dafa wax ne ahmad ibnu muhammad ibnu alhabib moo tax ñu séentu ne mhm. ci jamono yi jiitu géej gi la woon mhm. bu ko defee ñoo xam ne kon ci ci ci jëflanteem ak tubaab bi jàmmal tubaab ci la duggoon mu wane ci nag kon tubaab bi aw doxiinam wane ci itam fi nit ñi tegoon tubaab bi ak ni ñu ko jàppee woon mhm. wane ci it li nga xam ne euh, deug deug moy mbirum tuba bi non lañ ko wara jappé deug deug kon mënees na wax ñetti tombe yoy yëpp mm-hmm. ñi ngi ci ñi ngi ci xasida ñi ci xasida gi kon jërëjëf sëñ Seexuna ci lu gàtt won nga ñu am solo xasida gi taarixal nga ñu itam ci wan waxtu lañ ko bind ak yan ñoo tase won ba sëriñ bi bind ko kon mu melne ne euh, nit ñi dafa am no xam ne nonu lañu la buñ doon xolé tuba bi mm-hmm. ngir tuba bi itam lu mu fi jëf ñu dégg ko wala ñu gis ko Euh, am itam noo xam ne noonu la tubaab bi bëggee woon nit ñi gisee ko noonu waaye sëriñ bi nag comme da doon wax ne inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal muhayminu shaahidu euh, war na wala boog gis na ne loolu war na ko corriger war na bind bàyyi ci waaye war naa won mbooloo mi lii lu mu doon kon foofu lan nga ñu ci tegal dëgg la dëgg la li mu njëlbeenoo rek moom sëñ bi ci téere bi ginnaaw ubbite gi rek dafa wone tubaab yi nu ñu nekk nu ñu nekkee nu ñu nekkee dafa dafa tënk rek ne ñoom dañoo nekk prisonnier prisonnier iblis mooy day mel ne iblis da leen téye ci loxoom ñu ne ci loxoom fu mu leen jëmee ñu jëm fa mu mel ne loolu noonu dañ caa dem ba mel na ñu màndi ñu tàggook seen sago loolu la wax ba daanaka lu leen di lor rek ca lañuy nekk buy wax nag moom sëñ bi niñ ko xamee buy wax du wax mbirum àddina kese waaye lu muy wax rek da ci bàyyi wàll xel alaaxira ku jàpp ne nekkul ci lu koy lor ci àddina siitam itam mm-hmm. mën naa nekk ci lu koy lor alaaxira mu ne ñoom tubaab yooyu guddi ak bëccëg lu luy merloo yàlla rek la ñuy nekk te it yàlla dalee na dalee na wor mooy da leen mel ku leen jey ci am pexeem moom yàlla ba ñu bew ba àddina sépp fu ne ñu dem fa di non nit ñi di leen salfaaña loolu la tàmbalee ne kon mooy seen doxin loolu lay wax ci bayit yim naan wa baadu fal yahuudu wan nasara saaru li iblis al gawi usaara xataa gadaw ka annahum sukaara wa rayuhum fi xatfihim qad يسعون في الليل وفي النهار لجالب لغضب الجبار وغرهم بكيده حتى طغوا في كل بل في كل بلدان جميعا وبغوا loolu kon day wane seen seen seenu nekkin ak seenu doxin mu door caa jóge nag jàll ci ni leen nit ñi jàppe bu ñu ne nit ñi mooy li gën a bari ci nit ñi ci jamono joojo ci réew yi réew yi ñu nekkoon mu ne ñi gàtt xel ñu gàtt xel dañu jàpp ne tubaab yi ñoo gën ci nit ñi dañu jàpp ne mm-hmm. ñoo gën ci nit ñi ñoo féete kaw ñooy sangi nit ñu baax ñi nit yàlla yi mu ne ñu gàtt xelit te waru dañu jàpp ne tubaab yi ñooy ñi tedd ba mën naa tax sax ñu leen di topp ci lépp lu ñuy def lépp lu tubaab di def rek ñu jàpp ne lu rafet la wala lu bax la wala lu mën def la ba len tay roy ci yi nga xamne sax ay moy yàlla la ñu len ci roy mu ne it amna ci nit ñi ñooñ ragal tubab bi dafa tax ñu fàtte yàlla fàtte yonente bi sallallahu alaihi wa sallam yooyu lay wax ci fi mu naan wa dhannahum kullu safihin ghumri سادات أهل ذي الجلال الغر وظن من لم يعقلوا واغتروا أنهم هم الكرام الغر وطاوعوهم في الزنا والسرقة وغير ذين من فعال الفسقة وبعضهم قد نسي الجليل لخوفهم ونسي الرسول من أمنا نيوم نوغي نيو تبابي أغنى تي نيو جاب نمان لب بسخ دانا كدن كوي تك فين تك ملاك فين تك ملاك كاتن جين سين تك ملاك daanaka kàttan googee jàpp nañu tubaab bi am na ko am na ñu jàpp ne it tubaab bi mooy def ak a dindi nee na ñooñu nag la tax ñu jàpp loola bañ koy jàpp dañoo fàtte yàlla mi nga xam ne moo sàkk lépp te mooy ki man lépp itam mooy wa minhum in wa minhum man in raa nasraani yaxsibhu min malaa'iki rahmaani wa minhum man yaxsibu taasiira lahum wa yansal xaaliqal mu ne am na ci nit ñi itam ñooñ li nga xam ne yàlla da ko jaarale ci loxol tubaab bi rek da ko jaarale ci loxol tubaab bi rek ñoom dañuy jàpp ne loola tubaab baa ko jëfal boppam wala moo ko mënal boppam te yàllaa ko jaarale seen loxo rek ñu jàpp ne tubaab bi moom kàttan gépp moo ko yore man-man bépp itam moo ko yore foofu lay waxe ne wa minhum man garrahu nasaara بوصفهم حتى الفؤاد حار وينسب الصنع الذي أجراه فيهم إله الخلق إذ دهاه لهم ويعتقد أن الحول وقوة الفعل لهم والطول كن يو أي بن بن رك ينجوكي تي ييغا خامن تود نكو تي بير قصيده غي دي تي وانا في نيت ني في نيت ني تيغون توباب كون سي نيام دلات مانيس نا واخني bu njëkk bi wala ñaaru njëkk yi sax mooy bi mu wanee doxalinu tubaab bi ak nekkinam da ca teg nag wane fi ko nit ñi tegoon ak ni ñu ko jàppe woon mënees naa kon tënk loolu ci ñaar tomb yooyu tubaarkalla jërëjëf sëñ Cheikh na eh, ñaari tomb yooyu nga xam ne moom la doon développé léegi muy bu njëkk bi ñoom tubaab yi naka lañu mel ci dëgg-dëgg te loolu umpoon na nit ñi lool waaye Serigne Touba ci ak ñawam ak seetloom ak jaxasoog gum jaxasook ñoom seetlu na ne ñoom kat ñi ngi woote lu nekkul ci ñoom yemuñ ci woote ko waaye ñi ngi koy gëmloo nit ñi ngir seen mission mën a yomb euh, ci geneen wàll gi sëriñ bi jàkkaarlook ñoom te war a xettali xeet bi seetlu na loolu bind ko bàyyi fii waaye tiré na attention xeet bi mm-hmm. ci ne leen lu nekk teg leen ko fa mu war a tegu lu nekk estimi leen ko ci sa euh, ci valeur bi mu am justement mm-hmm. loolu mooy may euh, xeet bi mën a jàkkaarloog noonu bi nga xam ne mi ngi ci biiram te dafa mel ne sëñ seexu naa suma juumut tubaab bi euh, xeex bi mu xeex fii culture moo ci ëpp doole bari wu ci lool euh, ñi ngi wax sax ne léeg-léeg seen dar yi sax dara daawu ci nekk waaye nag tiitloo nañu nit ñi ba nga àgg ci fuñ leen gisee rek luñ leen digal ñu def ko te léeg-léeg lañ leen di digal du bokk ak seen diine du bokk ak seen euh, njariñ ci àdduna kon euh, tubaab bi mooy kan dëgg-dëgg nan la ko nit ñi xoolee ginnaaw bi mu leen tiitalee dëgg-dëgg mm-hmm. sëñ bi nag war a taxaw daal di leeral nit ñi naka lañu ñu war a jàppee seen bopp d'abord bala ñoo mën a jàppee tubaab bi ni mu doon loolu euh, bëggoon nañ nga indi ñi ci moom itam ak leeral euh, dëgg la noonu rek la ni nga ko waxee ci ne tubaab bi wàllu xel ak xol da ko yitteeloon buñ ne tubaab bi fii mooy français bi mm. loolu tam ñuy jàng jaar-jaar yi ñu doon not réewi jàmbur yi te jamono yooyu français yi ak anglais yi ñoo ci ñoo ci ëppoon doole dañuy wax ne li wuutale français ak anglais yi anglais yi ñoom daanaka li leen ñor mooy yilif suuf si rek ba li fi nekk ci koom-koom ñu mën koo jël ba tax duñ dox diggante nit ñi ak seen aaday bopp ak seen ngëm-ngëmi bopp duñ ca jéeme sopp dara la ci bari bu dee bi nag moom day dafa bokkaale ci jubloom mu soppi xalaati nit ñi ak seeni ngëm-ngëm ba moo tax bu xasee nott réew mi ba noppi la mu ca jéem a teg nag mooy jéem a nott xol yi ak xel yi moo tax sëñ bi moom euh, jëmee ab ab liggéeyam akub jàmmaarloom mu jëmee ko ci wet googu moo tax muy wone nag ne nit ñi noonu ñu jàppe tubaab bi tubaab bi nekkut foofa te dëgg-dëggam li mu tàmbulee rek te nit ñi war cee bàyyi xel mooy da da leen won ne da ngeen di nelaw yeewu leen nag noonu la tàmbulee macha allah bi mu waxee fi leen nit ñi teg ba nag dane nag sama gaa ñi jàppe tubaab bi nii nag maa ngi naan leen yeewu leen sama gaa yi yeewu leen noonu la ko waxee mm-hmm. qultu munabbihan lahum yaa qawmi intabihu min sakaratin naw da dangeen di nelaw moo tax ngeen jàpp tubaab bi nii yeewu leen nag ba gis dëgg-dëgg tubaab bi mooy kan mu ne dangeen di jaawale nit mën naa gis lu newi funki xam nga lu funki lu newi bokkut ak lu ñu duufal nga xam ne dafa am njariñ yara ko mm. am ku amoon am xaram mm. di ko duufal mooy di ko xont mm. ba suur day day day ni muy mel bokkut ak am xar mu meddoon moom itam noonu lay mel waaye mu ne nag bu leen jaawale ñaar yooyu mm. mooy kon tubaab bi am na lu ngeen gis ci kaw jàppe ko nu bokk te nam demee dëgg-dëgg laa tajaaloo muntafixan xad warima mm. mustasmanan fa daaka jahlun olima bu leen fekk lu medd ba funki ngeen jàpp ne lu ñu lu ñu yar la xarum yar mu mu ñu yar la ba mu kii ndax leen loolu ak réer la mm-hmm. mooy kon tubaab bi am na luy feeñ ci kawam bu ngeen ko jàppee noonu rek da ngeen di réer loolu bokkut ak dëgg-dëggam mu ne itam muy tënk daanaka tënk la hmm. ndax fi ñu leen tegoon jàpp ne ñoo man lépp ñoo féete kaw ñëpp hmm. ba ñoom nit boo ko tegee fenn fi da ngay di ci kanamam hmm. fi mu njëkk a tàmbalee mu xamal leen nag ne ak li ñuy tuddee tedd nga muy dignité dignité yàlla ci moom lañ ko war a sàkkoo te yàlla mi ngi ko jox ñi ko gëm loolu alquran moo ko waxoon fa lillahi al izzatu jamia ak lillahi al izzatu wa li rasulihi walil muminin mu ne laa tatlubu min gayri dil jalali al izza wa rifaata lid dalaali fa innama al izzatu lirrahmani jamiuha wa li dawi l ixsaani bu leen sàkku bu leen sàkku ak yëkkatiku bu leen ko sàkkoo ci kudul yàlla ndax neen loolu ak réer rek moo koy waral ndax yëkkatiku ak dignité yàllaa ko moom lépp luy ak yëkkatiku rek yàllaa ko moom ak ñi ñiy def lu baax hmm. mooy rek ñi nekk ci aw yoonam mu ne daal bu leen jàppee tubaab bi lu dul ku bëggee rek ak ku jaaxle hmm. ku xamul fu mu jëm ndax ku jaaxle mooy koo xam ne boolewut àllaaxira ci mbiram hmm. kon mi ngi dox waaye xamul fu mu jëm ndax nit ñi àllaaxira lañ jëm waaye ku jàpput ne àllaaxira am na wala séddoo ko ci sab dox day mel ni xamoo foo jëm day mel ni da ngaa gëlëm mu ne kon bu leen jàppee tubaab bi ñu dul ñu xër bëggee te gëlëm ndax nee na li am mu mel ne lu ñu am la ñoom na ngeen xam ne lu leen yàlla di yoote rek la yoot lu mel ne da leen di yoot yollu ngar li ñuy wax yollu ngar mooy li xam ne dañ koy tegal loy rëbb wala loy fiir ngir mu ñëw ngir mën ko jàpp day mel li len yàlla jox lool rek la waaye du dara ja joom len jox la mun la tahsabul majusa wan nasara siwa usara al hirs wal huyara li annama indahum istidraaju min xaytu laa yadruuna laa idraaju mu ne bu leen leen jàpp ay buur waaye na ngeen xam ne ay baadoo rek lañ mooy ñu ñu ñu néew dool lañ ñu ñàkk solo lañ doonuñu ay buur ndax nee na ku toppul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ko toppul ci alko rek lay jëm ndax li muy def ak li muy wax lépp dee ko gërëm mooy du doon lu yàlla bëgg du doon lu ñu koy fayee ëllëg ki topp yonent bi nag bëgg ko ki bëgg yonent bi ta taroy ko nee na kooku ëllëg mooy am la mu bëgg te ëllëg itam mooy doon kañuy ka ñuy gërëm ndax nee na kii nga xam ne topp ko al alku moo ko cay fekk ëllëg loola maandug yàlla la hmm. kii nga xam ne moo ko bëgg nag di ko roy di ca amee la bëgg ëllëg loola ngëneelul yàlla la wala tazunnu annahum muluku bal innama kulluhumu soxluuku hmm. li anna man lam yattabi muhammada xayru salawaati سرمدا فإنما مصيره إلى الردى إذ قوله وفعله لن يحمد أما الذي أحبه ثم اقتدى به ففائز ومحمود غدا لكن ذائه بفضل الله وذاك بالعدل بلا اشتباه ñi mu rek ñaar bayit yoo xam ne euh, momit day mel ne tënkaat la rek mm. ci lim mu waxoon bi muy wax ne tubaab yi am nañu jàpp ne mm. Euh, ñoo am kàttan gépp dafa wax ne demewut noonu kàttan ak man-man lépp lépp lépp yàlla rek a ko yore yàlla rek moom mi nga xam ne moo sàkk asamaan moom moo sàkk lépp lu am yàlla moomu rek moo am kàttan moo am man-man mu ne itam bu fekkee da ngeen a bëgg njariñ bu leen ko sàkkoo ci kuddul yàlla bu ngeen bëggee mucc ci lor itam bu leen sàkkoo muccee mucc ku leen sàkku mucc ci ku dul yàlla ndax nee na lor ak njariñ yépp ci yàlla rek lay jóge bal innama al quwatu wal xawlu jamia li fatiri samaai rabbina al badia la taxsabu min gayri rabbina al jalil an nafa wa durra aya dawi al fudul moo tax kon loolu daal mënees naa wax ne ci tënk mooy li nga xam ne ñëw na ci xasida gi di ilhamu salaam fi dabi an diin al kon sëñ ñoo ngi lay dollee gërëm ci li nga ci tegaat ci ak leeral waaye mu mel ni su ma tënkee li nga wax ginnaaw bi sëriñ bi xamlee tubaab bi mooy kan dëgg-dëgg ndax présenté wutoon boppam mm-hmm. ni mu doone ni mu présenté woon boppam itam ay woro ngi ci woon mm-hmm. mu leeral ko xeet wi mm-hmm. waaye bi mu ci noppee mu wax leen naka ngeen ko war a jàppe bu leen leeralee nag niñ ko war a jàppee am na lu ma bëgg ñu yaatal ko mooy itam istinbataat euh, yi nga xam ne war nañ ko def ci xasida gi hmm. ak ci dimension màggal géeg liggéeyu sëñ bi hmm. buñ daanee yi waaye li ma la bëgg laaj mooy euh, ndax nit ñi dégg nañ message sëñ bi ci wàll googu waaw moom de ca njëlbeen ga moom ñam ñam yoraloon boppam doon leen yaral boppam déggoon nañ ko hmm. moo tax ci njëlbeen nu wax ne sax loolu bokk na ci li gënoon a metti tubaab bi mooy ñooña moom teguñu woon tubaab bi feneen ña ci des tegoon mhm. loolu bokk na ci lépp gënoon metti mooy ni leen ni leen ni ñu leen euh, tege seen place daal ah. jàppale na ay nit rek mhm. jàppale nit rek nit koy jëflanteel ci ay surut mu nga ñoom ak seen ndaw yi fi nekkoon ndax xam nga boobu tubaab bi mhm. euh, am na béréb yooyu daawut daawut daawut jëflante nit ñi directement waaye dafa am ñu mu fi doxale woon mooy ñu njëkkoon a doon ñu daan jiite nit ñi bu njëkk mm-hmm. bi leen tubaab bi noté itam dañ leen a bàyyee dara mooy ay can canton yeeg mm-hmm. ay chef de canton yeeg ak yu mel noonu ak jamono yooyu buur yeeg ñu fi bàyyi woon daal ay teeñ ak yu mel noonu mm-hmm. ñoom la fi bàyyi woon ñu dox digganteem ak nit ñi ne nit ñi dañ leen ragaloon ndax dañ leen daawuñ daawuñ leen jaarale yoon ñoom itam amoon nañu histoire avant tubaab bi ak nit ñi waaw ñoo ñëpp nag bisañ bi ñëwee ñu ko toppoon moom ragaltuñ kenn ci ñoom amul kenn kuñ tegati fa leen nit ñi daan teg loolu bokk na ci li leen metti woon kon mooy war a ne kon mhm. li mu doon moom sëñ bi li mu jublu woon moom amoon na ci ñi yaraloon boppam xëy na nag mhm. euh, nuñ koy wax rek mhm. lu baree bari day ruus jërëjëf day ruus jërëjëf kon dafay mel ne sëñ bi ci moom ci boppam fexe woon na lenn ci xeet wi dégg message bi kon li ñuy def tey mu ngi dolli ko am solo ginnaaw bu ñu xamee loolu ci ne sëriñ bi ñu bari ni ñu jàppee ab liggéeyam ak jambar lom bokut ak mom nim ko déggee té mm-hmm. télon nako wax mm-hmm. wax ngén né damay jihad mm-hmm. feexlan damay jihad waaye nak dafa am ay méthodologie yu ma jël ay nganna yu ma jël yo xamné bokut ak ni ngén ko fooge ba andi won na ñu seet si ko ci ay nganna ak nak nangam kon euh dairatu rawdu rayahin ci cadre euh, comité d'organisation bi nga xamné mo yor magalu Touba kon danañu yëg amuk solo gi muy jëlaat njàngatum sëñ bi ak contexte yam xewon diko jox ñi nga xamné fekke wuñ ko woon wala buñ ko fekkee dégguñu ko woon mm-hmm. ndax lii ci arab la ko bint ñëpp mënuñoo jottali ko xasida gi ci arab mm-hmm. kon euh, euh, loolu lu mat a bàyyi xel la ci di topp yëngatuy dayre bi ndax mooy làmmiñu sëriñ bi ci jamono ji kon euh, sëriñ naa ginnaaw bi ñu santee gërëm ci façon bi nga présente xasida gi waaye ci gàttal bu ñu ko waxtu wi mayoon xaj na dana ci ñëw ci façon bu gën a yaatu kon dafay mel ne suñu ñëwee nag ci war a tënk jataay bi ak lan lañ mën a jàngee ci xasiida gi ci jamono jii lan la ñuy mën a gis bu ñu tegee tomb yooyu histoire wone sëriñ bi jàngale ko li ci suñu kanam nag. Mm-hmm. Euh, jërëjëf sëñ Blaat loolu mooy xam naa li nga ne woon ndox am na jeexit am na jeexit amoon na ko waaye mi ngi ruus. Mm. mi ngi ruus kon dañoo war a delluwaat rek dañoo war a delluwaat cosaan rek. ndax sëñ bi yeesal ko andi woon yeesal nag euh, jamono ju nekkit mën naa laaj yeesal mooy moom ci boppam li fi andi woon mën naa dem ba jëmmi jamono mu laaj yeesal ni nga xamee ne moom dafa ñëwoon di yeesal lislaam ji fi yonent yonent bi andi woon muy sunnaam mhm. lim fi lim yeesaloon mën naa dem ba jëmmi jamono mu laajaat yeesal waaye la mu waxoon nag moom mhm. dafa ñaanoon yàlla euh, mu mu def ci njabootam ñuy yeesal وتدخل المصلح في يدي وفي أهلي وثبتنه بالهادي الوفي هادي الوفي نحن نكون كون موي موي موي نينكم جباتم نعمل بو يسال جتاي نيو ورا جوك يسال ليغا وخ ليك دار الدرر راحين ا لول موي سينو جوبلو موي فاس نان يينا دال لي نيو لو نيو جوتلي لو ني دون وير خينا duñ wax ne ñoom rek ñoo jotti lu wér mhm. waaye daal ñoom li ñu jottali daañu fexe ba mu doon lu wér tubarkala tubarkala lu wér la ndaxte bi mu fi toogee ak yeneen plateau yi ngeen jot a amu ci lenn loo xam ne dana ko wax nit ñi jot ko ci ay information te andiwul bayit wuy confirmer loolu ñi dégg arab xam nañ ne loolu euh, lu nekk la kon ñi ngi jéem a euh, jël jéem a ànd ak jamono lépp lu mu laaj ci bayit wi ko wi sëriñ bi bind baf yi te sëñ bi jàng ko léegi euh, foofu sëriñ tuubaa tegoon tànkam ci di yee xeet wi ndaxte kat sëriñ bi dafay mel ne loola ñu noté woon xeet wi ragal loo leen ko tey jii la gën a yaatu mm-hmm. tey jii la gën a bari mm-hmm. tey jii la gën a doy waar mm-hmm. kon yan lumière nag ñoo taxaw jàngataat sëñ bi tegaat seen tànk fa sëñ bi tegoon tànkam te xam ne mbir mi lu sérieux la loo xam ne amut fu muy mën a yem li fekk dund gaa ngi fi kon jàmbaar loola bu dul bu dul dakk ndax kon ñooñu dëgg-dëgg ñi ngi def seen rol fi ñu leen doon xaar ña ngi fay ña ngi xam naa loolu moom daanaka ma naa war a ñëpp la war a lool loolu ñu war a ñëpp la mooy ku ne rek da caa war a jéem ñoo ñàkkut ñu ci jéem ñàkkut ñu ci jéem kon euh, xanaa ñu ci jéem la ñu ñaan yàlla gën leen dëgëral euh, ñu ci des sam yàlla def seeni xel loolu def seen xel euh, lu mel noonu ndax duñ ko waxee rek yeesal moom dañ koy soxla jamono ju ne li sëñ bi indi woon bu demee balaa jees dañ ko war a yeesal lim te yeesal moom ci gàttal rek sëñ bi mm-hmm. diggante moom sunna day am ñetti baat yu muy jëfandikoo mm-hmm. day wax yeesal mm-hmm. di wax leeral di wax dundal ñetti baat yëpp lay jëfandikoo ñett yooyu yëpp itam nag njàngaleem sëñ bi itam aajowoo na ko aajoo na di leeral mm-hmm. aajoo na di dundal aajoo na di yeesal ci maanaam mi mu jubluwoon ci yeesal moom mm-hmm. te yeesal gi du yeesal jëmmi li indi moom mm-hmm. waaye ni ko nit ñi déggee ak ni ko nit ñi di jëfandikoo lu ca jàdd aw yoon ñu delloo si loola ca yoon wa loola mooy yeesal kon loolu itam njàngaleem sëñ bi da koo soxla waaye ginnaaw ñaanoon na nag njabootam di ko def ñi koy def bokk ci njabootam kon képp koo xam ne am na lu mu ci war a man rek war def kem kàttanam ba euh, bokk ci ña koy def tubaarkàlla macha allah yéen mbokk yi ñu doon teewlu te doon ànd ak ñun ci xasida gi ñu wax ilhamul wadu ilhaamu salaam fi dabbi an diinil islam loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu waxtu yi may ngir ñu mën ko leeral ci xasida gi waaye tomb bu ci nekk sëriñ bi mënoon na cee taxaw développé ci lu am solo waaye xaj na li ci suñu kanam danañ jëlaat yeneen Euh, dimension xasida gi ngir ñëw ci waaye euh, bala ma laa jox sëñ seexu naa nga tàggoog mbokk yi dama bëgg wax rek ne xasida gi am na solo gépp am solo tur wi sax dafa mel ne dafa xaw a raar ci ñenn ñi waaye euh, ci loolu la ñuy soññee ñu delluwaat jéem a xoolaat xasida gi bu baax ci ku ko mën a jàng ku ko mënta jàng traduction yi nga jëm ko xool xam ne li ñuy defal sëriñ Touba ci cadre daayira Rawdu Rayaahiin encouragement rek lañ soxla Euh, ñi ngi jëf lu ñu mën ngir teg suñ tànk fi sëriñ bi tegoon tànkam te itam dafay mel ni ñun ñaan gu nangu lañ kon daayira bi ñaan gu nangu la mbooloo mi ci nekk itam ñaan gu la kon euh, day mel ne mbirum sëriñ Tuubaa la goo xam ne encouragement la laaj ci jaw ci côté yëpp naa Seexuna euh, ci benn minute ñu jox la nga tàggoog mbokk yi nga xam ne wax dëgg présenté nga leen lu am solo ci xasida jërëjëf jërëjëf xam naa ngir wane rek ne xasida yu mel nii ci biir ci biir leeral ak yeesal day doon lu ñu yittewoo euh, lu toll lu jege ñaar fukki at ci ginnaaw. 1995 hmm. mas na maa tekki xasida gi ci wolof. Hmm. bindoon ko ci arafi arab yi bañ mooloon ko. xëy na mool bi nag tas yaatuwutoon loolu. nag hmm. bëriwutoon ba mën naa am xëy na ñu bëri jotuñ ko. mas naa ko tekki ci ci français itam bind ko it ci ci lettre ci arafi latin yi. Mm-hmm. wolof wolof loolu nag moom jotuma koo mool mm-hmm. waaye moom it ma ko defee léegi war naa mat fukki at ak juróom xëy na wala lu ko jege mm-hmm. euh, ngir wane rek ne euh, jëm xasida gi ci boppam moom ak yu ni mel euh, lu lu ñu yitteel la ngir muy tasaaroo ngir xam nañ ne nit ñi fu ñu toll soxla nañ di nafaraat njàngaleem sëñ bi ci wàll yëpp rawatina ci wàll gi nag ni nga ko waxee léegi jamono ji ci la cong mi mënees naa wax ne ci la ëpp doole kon nag liy aar nit ki ci ko gën a war a nga tàggoo mbokk yi xam di sant mbokk yi doon doon bàyyi xel yépp rek euh, di feddiliwaat li ñu waxoon ci tàmbali bi rek ñaan yàlla euh, màggal gi agsi ba noppi muy suba ak jàmm rek yàlla defal nu tawféex ba nu defee ko ni mu ko bëggee defal nu tawféex itam ni ko sëñ bi bëggee mooy ni ko hmm. yàlla bëggee rek defal hmm. tawféex itam ba hmm. li ci sëñ bi diggee ci aw yi yëpp nu mën cee jot ta mu del ci ay ati at yu fek ci jamm ak tal wa salaamullahi aleykum wa warahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ñongi tejj suñu kaddu fofu waaye bala ñu ko tejj ñu wax len ne len comme mbok mi fi togon gis ngeen ne qasida gi lu ko yi tel la ñu soññee itam ñu delu sëriñ bi bo mané delo ci wat lolu nga liggéeyoon ci xasida gi ci wal traduction yi ci yenen langue yi nga delo si ko xaj na ñàkku ne mbokk yaa ngi koy xaar wala buñ déggee lii jéem koo seet euh, kon daal mi ngi noonu am na solo gépp am solo euh, ndaw yi nga xam ne ñoo toogoon fii euh, di ko def mooy sëriñ naa Mbàkke Abdul Wadood Cheikh Abdul Ahad Mbàkke Imam Malik ñuy ñaan sunu boroom mu may ñu dégg ak topp defal ñu tawféex ci li suñu kanam ba sëriñ Tuubaa am ci ñun li nga xam ne moom la doon nasir wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh